Je m'appelle Jean-Philippe Detchegaï. Je suis le chargé de la communication du maire de la commune de Morolan. Alors aujourd'hui, ce qui est question, c'est de voir comment résoudre le problème qui se passe. Le vol récurrent de bétail au niveau de la commune. Certes, on n'a pas aujourd'hui les facettes pour s'en sortir tout de suite. Cependant, on pense parler à l'autorité supérieure, comme pour dire que, à travers ce qui se passe, Chaque fois, il y a des cas de déclaration au niveau de la commune. Des gens viennent pour écrire des, des, des, des déclarations de perte et à chaque fois, ça revient. Et pour, euh, récemment, la dernière fois, ce qui s'est passé, c'était que euh, il y a un cas de vol où les éleveurs sont pas allés chercher les, les voleurs en question. Et finalement, il y a eu bataille rangée entre les deux et on a vu certains du fils de, du terroir, de, fils du terroir qui sont actuellement en prison. Et maintenant, le problème qu'on se pose, est-ce qu'on va continuer à être toujours victime de ces cas de vol ou alors il y aura mesure par rapport à cela. Et sur ce, on a dit, le mieux c'est d'alerter l'opinion publique, de leur dire qu'à Morolan, on a ces problèmes. Il y en a beaucoup qui sont signalés. Actuellement, par rapport à ceux qui sont là, justement, il y a des villages qui ne sont pas là parce qu'on a cité surtout l'Oros. Et si vous voyez bien par rapport aux Loros est un village où réellement le l'élevage est vraiment intensif là-bas. Les gens font l'embouche, il y a également l'élevage extensif. Chaque fois, il y a ces cas. Et surtout, c'est un village vraiment où réellement s'il y a élevage aujourd'hui à Morla, on ne peut pas parler d'élevage en Loros. Cependant, ça ne se limite pas à Loros. Il y a Kër Daouda tout à l'heure qui il y a euh, Sambay Karang, il y a Palo Yuga, Palo Dial, comme Palo Los. à Tuine Diassa également le cas. Aujourd'hui, si à Tuine Diassa il y a moins d'éleveurs, c'est parce que on a presque décimé le bétail là-bas. On en a volé à telle enseigne qu'aujourd'hui, à Tuine Diassa, il y a moins, quelques, quelques gens qui sont en train de, faire cet élevage. Et ces gens sont ont tout fait pour clôturer d'abord leur maison, c'est-à-dire avoir leur maison en, en pour, pré, pour, prétendre prendre de leur bétail et mettre à l'intérieur pour au moins avoir un minimum sécurité, une petite comme pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de villages sont signalés, mais c'est partout dans le Morlan où il y a ces cas. Et même au-delà, quand on dit Tchelandjor et autres, ce sont des gens qui sont là par rapport à l'élevage, ils sont parce qu'ils sont du terroir. Dit, je disais que quand on dit terroir, le doute, c'est tous ceux qui sont ceux qui parlent le, dialecte ndoute, qui parlent le serrer ndoute. Mais ils ne sont pas seulement limités à la communauté commune. y a commune, de Notto Gouye Diama mais qui sont là avec qui qui parlent le même le même doute que nous et ils sont affiliés au groupement au niveau des des éleveurs qui sont là et tous ces gens sont en train de réclamer et au-delà maintenant pour nous euh, l'urgence c'est de mettre sur place une brigade de gendarmerie qui pourrait permettre au moins d'amoindrir ou alors d'arrondir les angles par rapport à ces cas de vol il y en a tellement on en a vu et comme le l'a si bien dit j'étais là, d'ailleurs, il m'avait alerté comme pour dire aux gens que nous avons fait les démarches nécessaires. On a été jusqu'à la gendarmerie, jusqu'aux autorités suprêmes, pour au moins parler de ce qui se passe. Et là, même les gens étaient venus pour prendre, parce qu'on avait dit que s'il y a aujourd'hui brigade, on pouvait la loger au niveau de l'ancienne maison communautaire qui se trouve de l'autre côté. Et là, ils étaient venus, ils ont pris les mesures, ils la maison, comme pour dire que c'était Et cela date de depuis parce que depuis 2010 aujourd'hui nous sommes 5 ans plus tard on est toujours à la recherche de cette brigade parce que récemment on avait parlé des cas de de, de drogue qu'on a vu au niveau de la périphérie même si c'est pas directement au, au sein de la commune en tant que telle mais sont des gens qui quittent aussi le village ou la commune ici pour aller se ravitailler de cette drogue en tant que telle donc s'il brigade on peut penser que la consommation de, de cette drogue peut aussi laisse cesser. Aussi, par rapport à, à ces conflits qui existent entre eux, euh, dans, au sein familles, au sein de la commune, par rapport aussi à la vente d'alcool, on en a parlé la dernière fois, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont en train de vendre et qui n'ont pas des permis, des licences et autres. Et aujourd'hui, c'est le vol de bétail qui est revenu, qui refait surface. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est de pouvoir mettre sur place cette brigade de gendarmerie et cela pourrait peut-être par rapport à sa sécurité. Parce qu'on passe à la sécurité des personnes, mais certainement à la sécurité des biens, surtout au niveau de la commune. Donc le maire m'a chargé de dire à toute la population, à, donc d'une manière générale, qu'on a fait le maximum possible, on a essayé et on va continuer à lutter pour que cette brigade de gendarmerie puisse être là. Donc on lance l'appel au sous-préfet, au préfet, au gouverneur, et surtout au président de la République pour dire que nous, aujourd'hui, à Morlan, l'urgence est de mettre sur place une brigade de gendarmerie pour que qu'au moins la population se sente en sécurité par rapport a ce qui se passe aujourd'hui. waaw maa ngi leen di nuyu ñëpp ñi fi nekk muy éleveurs yi ak euh, presse bi fi ne ma di gërëm ñëpp ci seen teewaay di leen fàttali ni man maa ngi tudd Jean-Philippe Guèye man maa yor rek lépp luy euh, communication bu meeru Morlan Eh, li waral toogaay gi la tey mooy nii ni eh, sàmmkat yi dañu am naxar te bu ñu amee naxar Morolan am na naxar mm, eh, naxar gi mooy nii jur gi sàcc bi moom moo ci ëpp da ngay yar nga am ci yaakaar te balaa muy balaa li ngay yaakaar di jot sax fekk la nga yaakaar ñu tas ko ci ay sàcc te chaque fois wala saa su ne dañuy gis ni ñu bëri ñoo ngi ñëw di def déclaration bind ay kayit di teg ci table mu maire ni sàccal nañ ma juróomi béy fii nii ñaari fukki béy eh, kii ku ci nekk di wax lañ ko sàccal te ñu yaakaar ni eh, boo demee ba nekk ci réew da nga war a am kaaraange muy sa kaaraange bopp muy kaaraange jur gi nga yor ak sa alal ci sa wàllu ci sa wàllu bopp donc kaaraange danay àgg ci nit ñi waaye dana àgg ci lii nit ñi yor muy seen seen alal alal googu leen nag bu ñu ko yaakaaree wala kenn ku yaakaar ci juram nga gis ni dañ koy sàcc da ngay dem ba tamit da ngay ni ah jaratul ma koy def kon ma lem sama loxo rek daal di bàyyi te loolu jëmalul réew kanam bu ñu nee mbéy dafa ànd ak sàmm mbéy mi tamit wax nañ ko bu dee am nañu plan bu ñu lal nar ni eh, ñii di sàmm war see gis seen bopp ñii di béy tamit gis seen bopp plan boobu fii ak ñoo ngi koy lal te gis ñu kuy sàmm danañ fekk loolu tamit amul benn njëriñ kon bu ñuy xalaat mbéy dañuy xalaat loolu ne moo waral woote gi pour ñu mën a wax ñépp ni dañuy woote tamit ku ñuy wàllu si mooy nii am na naxar am na coono mooy sàcc bi sàcc boobu nan la ñuy def ñun bu ñu sañoon suñu mbébét mooy tey brigade de gendarmerie ñu indi ko fii te loolu maa ngi cee woo kii di su préfet woo ci euh, kii di gouverneur woo ci kii di euh, préfet bi tamit ñépp jàpp ci euh, ndax lii la ñuy sumb ñu am ko ndaxte ñoo ngi soññ réew mi ndax bëgg nañu brigade boobu bu fi nekkee tamit danay gën a wàññi lii di sàcc bi te wax naa ko sànq sàcc bi mi ngi fi waaye am na yeneen yoo xam ne tamit mi ngi gàllankoor waxambaane yi muy drogue bi ñuy wax euh, sinébar boobu gis nañ ko sorewu fi te bu sorewul tamit ñi fi ne sañ nañoo dem jëli ñëwaat indi ko fi te loolu tamit li koy waral bu dee dañ gisoon brigade bu fi ne wala am na saytu bu metti bu fi nekkoon ci biir réew mi danay wàññi loolu wala sax dana koy dàkkal ci noonu jaaykatu sàngara si tamit am na ñu bëri ñoo xam ne ñoo ngi koy def te yoruñu sax kayit bu koy buy mën a firndeel ni ñoom moo sañ am nañu sañ-sañ ñu jaay ko te yooyu yëpp bu doon am na contrôle buy am danay yombal liggéey bi dana tax tamit loolu yëpp dàq ndaxte ci soosu leneen di dikk ci drogue bi tamit la loolu di xew te tey bu ñu amee suñu jur gi tey amuñu ku ñu koy aaral ndaxte loo xam tamit guddi lañ koy jël laaj na tamit beneen kaaraange bu dul bu waa kër gi ak waa dëkk bi kon ñoo ngi woote ndax loolu mën a am ci noonu tamit ni ko monsieur le maire waxee booba tey defoon nañu demande euh, ba nit ñëw nañu fii jël nañu fi ay foto photo nañu ancienne maison communautaire mooy maire bu njëkk ba fa la xalaat ni euh, bu ñu naree am brigade de gendarmerie foofu lay ne léegi bu fa nekkee euh, yaakaar naa muy aar dëkk bi danay gën a wàññi lii nga xam ne mooy sàcc mi jël nañ fa ay foto dig nañu ni xëy na dañu dellu si dellu si si bu ñu dellu see yaakaar naa dañu am suñu brigade boobu waaye boobu ak léegi dafa yàgg te mi ngi toll ni ci juróom at tey kon yaakaar nañu bu ñu déggee suñu woote gi nii tey danay tax tamit ñoom ñu gën a gëstuwaat xool lan moo ko téye woon ak lan moo mën a tax mu gën a gaaw ndax euh, suñu bay suñu sàmmkat yi ak suñu population bi di manière générale ñoom ñu gis seen bopp ci lii nii ndax kaaraange yemul rek ci nit yem na tamit ci jur gi ak alal ga ñu yor moo waral woote gi ñu bëgg nag Euh, comme presse bi mu ngi nii euh, ñoom tamit ma di leen gërëm au passage ndaxte saa suñu wootee fii Morlan duñu taay ñu ñëw jël seen doole seen liggéey bàyyi ko ñoo fekk si ñu jàpp ci liggéey bi def li mu war ndaxte tey dañuy gis ni Morlan bokk na ci li nga xam dëkk yi nga xamante tamit ñoom la ñuy gën a dégg sax ci ci presse bi ndaxte ñoom taayu ñu euh, di di di ñu fekk si di jël kàddu yi di koy biiral muy gën a law te loolu yaakaar naa danay gën a tax tamit li ñuy sox suñu soxla mu gën a faju Eh, ma di eh, gërëm ñëpp ñi fi teew gërëm eh, ñëpp ñi nga xamante ni jot nañu yëkkati kàddu donte sax li nga bëgg wax xëy na doo ci yegg sax waaye nag nañu jàpp ni metti na ñun ku ñuy jàppale rek lañu bëgg ma di la gërëm presse bi di leen ñaanal tamit gu yaram ndax liggéey bi ngeen mën see wéy wasalaam. yëkk kees gi ñu rey ko ci benn kër ñu jàpp sàcc ki ki ko rey ñu yóbbu yóbbu ko polis Eh, biñ ko yóbboo polis eh, mel ni ñu ni eh, bërëm nawe mu ni sama naq amul marqué sàcc bi ki rey nawe mu ni nawa naxam am na marqué bi loolu kiyee tamit ñu kii ba photo der bi bu ñu photo der bi ñu bàyyi ba am juróom-ñetti fan xaw ma ñu waat bërëm nawi fekk na débris woow na ñu ni dañ koy dañ koy dañ koy tooyalaat ci bërëg ñu jéem a seet marqué bi te damaa yaakaar ni dër bu bees teg bu tooy bu fekkente ni mu ne su ciy gis marqué ñu dem ba dër bi woow ñu do ko dañ koy xooj ñu doo doo wut marqué ci biir damaa yaakaar ni e, sécurité bi yaakaar naa ni moo des ci wàllu boobu e, fi ñu toll nii day wax dëgg yàlla ñu ngi toog ci ba nga jaaxle ku ñu dimbale ci loolu ñu nangu bu rëm réew mi bu fekkee ne mu ngi ñuy dégg wala ñu leen jege sàcc metti na Morolan lool waaw metti na Morolan lool te buñ ko arrêté wul tamit eh, yaakaar naa ni ah dañuy bañ bakkan yu rot de waaye ay bari ab bakkan mën na ciy roj waaw ngeen baal ma eh, daaw yàlla dogal na nawet amu fi nawet amu fi daaw Euh, ren yàlla dimbali nañu ba nawet am na fi ndox am na fi doy na te tool yi sax na ci cool au mois de mai dañu toog baykat yeeg sàmm yi dañu toog waxtaan ni bu asamaan si sébbee nay nañu dem ci tàngoor bi nañu yëg ci foore bi nañu nekk ci foore bi bu ko def ci suuf ñu bàyyi bàyyi paysans yi ñoom ñu mën a bàyyi mën a am dunde lu ne lu ñu dunde sàmm yi def loolu aussi nag yi yéeg ci kaw tund bi wàccuñ ci suuf te eh, bi mu tawee ak léegi bi ñax saxee ak léegi li fi jóg ci ay nag yu nga xam ne bii doole moo leen yóbbu sàcc bu fekkee ni dafa yor ay fetal gaare oto dàq xale yu ndaw yi doon sàmm nay ci foore bi yëpp nay yóbbu loolu da ci jamonoy Lat Joor ak ñoom kii la xewoon bu njëkk li ñu tuddee lël mais lël moo am fii tey suñu diggante ak waa Cees yi la am nañu coono te it euh, sàcc sàcc bu fekkee oto oto moo koy yóbbu kenn ñimeetul jënd nag kenn ñi ñimeetul jënd xaar kenn ñi ñimeetul jënd béy guddi dañuy ñëw ci kër ubbi kër gi yóbbu xar yi dugal oto dem dañuy ñëw ngeddu béy. jël béy duwal ci oto yóbbu dem kenn ñimeetul def dara léegi kenn ñimeetul jënd dara léegi kon nit ñi fan lañu jëm état bi na wax ci lii bu jëkk euh, président Macky bi muy door a yéeg dafa waxoon ne ku sàcc nañu ko teg dix ku sàcc nañu ko teg tëj dix ans au minimum au minimum dix ans te sàcc yaa ngi ni di taxawal kenn du leen tëj ñu ne léegi kenn du dóor sàcc boo dóoree sàcc ñu tëj la fan lañu jëm ñu de jaaxle nañu Morolan de jaaxle nañu léegi daal euh, lii gën tey nañu dimbali indi ñu brigade brigade de gendarmerie wala brigade yi fi nekk Thiès ak ak euh, Tivaouane nañu alterner tali bi guddi à partir de vingt-deux heures ñu yéeg ci tali bi oto bu ñu gis ñu arrêté ko xool lan moo nekk ci biir sàmm bu yoree jaasi ñu nangu jaasi ji boo yoree yet ñu nangu yet bi te it sàcc bi moom lu ko neex lay yóbbu li fi jóg daaw ak ren li fi jóg ci nag fi mu nekk nit ñi del dem nañ ci ndóol état bi indul dund indul dara nit ñi amatuñu lu ñu dundee tool yi ñoragul te eh, sa biir nga war a jaay wala sa xar wala sa nag nga jënd dund pour sa njaboot. te loolu mënuloo ko am loo am rek sàcc nañu ko yóbbu kenn bu ñu ko sàccee fukki nag ak nangam yóbbu ko kii ñu sàccee ko juróom-ñett ak yóbbu kii ñu sàccee ko quinze ñu yóbbu mais nit ñi fan lañu jëm état bi na wax ci lii ñun kat bu jëkk euh, tund wii ñu nekk nii kenn mosul yàpp mag ñi fi nekkoon te mag ñi ñoo nu jur li nekk jikk bi nekk ci mag ñi moo nekk ci ñun bu fekkee ne eh, li ñuy def jël seen doole di nangu suñu alal mun nañ jël suñu doole si dab leen fu ñu mën a nekk ñu dab leen jël suñu alal ak lu ñu ciy fekk bu ñu doon dee dañuy dee rek waaye dañuy nangu suñu alal mais loo def ñu jàppale la tëj loo def rek yow la ñuy jàpp tëj yow mi nga yaa moom sa alal nit ki yóbbu sa alal ñu bàyyi ko muy dem ak sa alal tu vas en prison loolu fan lañu jëm bu yàggee kenn dootul sàmm kenn dootul na mu tuddi Eh, sàmm yi fii de eh, góor nañu bu may jàll ma eh, sant ci état bi ci aliment de bétail bi mu dimbali jur gi sant nañu ko ci waaye nag bi ñuy yëfal jur gi boobu jamono xam bu ñu xamoon ne aussi sàcc yi dañu ko dañuy ñëw jël leen kon duñu leen yëfal fii nekk mbokk yi li ñuy gën a jaaxal fii moom mooy sàcc bu métti surtout sàcc jur gi te li ci gën a ci gannaaw leneen li sama mbokk yi wax nañu ko ñun ci mbiru béy laay wax béy at yi lu pot mot lekk juróomi at béy dañ leen sàcc fii ci biir Tiwil Tambawar man ci suma boppam man mi sàccal nañu mot fukki béy ak juróom-ñett dama mujj ñëw fii ci mairie Morla ma def leetar euh, euh, ki plainte contre x ma indi foofu fii ci mairie bi ma wax ko fii ci mairie bi ñëpp a ak waaye taxul toujours ñu ngi sàcc par benn béy par ñaari béy par juróomi béy même fi ma nekk nii démarré leen ay ay sikket gisuma leen wër naa wër wër gisuma leen sàcc bi lajal naa ne fii trop keroog topp naa sàcc ba mu fekk ñu rey suma béy ñu fees ko béy si bërit bi ak der bi rek la ñu fa béy waaw kenn mënul fekk ne ba nga teg leen bët mujj na sax dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy ñëw guddi ci gétt yi rey béy fees ko yóbbu ko yóbbu yóbbu wala ñëw ci gétt gi dàq ay béy yóbbu leen nga topp béyu dugg oto xam la sàcc bu kese dugg oto soo koy wutee da ngay mujj dem rek nga toog xam léegi perte léegi daal ñoo ngi ñaan euh, euh, gouvernement bi autorité yi nañu dimbali ci sàcc yi oto boo gis guddi muy dem fexeel nga xam lan moo nekk ci biir oto bi loo gis guddi balaa moo dem su dix heures guddi passé oto bu départ bu ñu gis nañu xam oto bi lan moo ci nekk oto oto sax léeg-léeg sax sax dañuy dem léegi ñu jëm léegi ñu dem léegi ay kayit ñu bind ay kayit ñu ne léegi euh, euh, am na am na am na léegi kii nu mu tuddati euh, laissez-passer fekk fekk fekk fekk amul fekk amul léegi daal oto bu ñu gis mu yëpp xar wala béy wala nag ngillaay wa rasuuli nañ ñu ci jàppale suñu jàppee ñaar wala ñett ñu teg leen ci yoon ah sàcc bi dina dina wàññeeku gouvernement nañu dimbal ci sàcc bi wax dëgg yàlla fi mu nekk léegi nii nga yor sa sa béy wala sa nag wala sa xar néegi loo sax jaay nga dimbali sa waa kër néegi loo sax néeg néeg néeg néegi loo sax euh, euh, euh, jaay nga nga def ko dépense waaye jógee fale ñëw ko foofu demee mu ko daane sàngar ak di ko demee ci ñu mel ne buri altine wax dëgg yàlla sonal nañu trop wax dëgg yàlla ngir yàlla gouvernement bi nañ ci jàppante moom ak amul kenn fu ñu ko mën a jooytu soo jàppee léegi sàcc soo ko dooree ñu jàppala soo ko reyee <laughs> nga dee ci kaso bi kon nekk nañu dimbali ngir yàlla ak yoneen ci sàcc bi te ñoom mun nañu suñu suñu si jógee mun na deñ de benn bés mun na deñ sàcc yi sàcc li suñu jàppoon sàcc léegi ba mu wóor xam ne kii de la sàcc nga génne ko ci télé yi nga doomu diw ak doomu diw sàcc na diw nga dagg loxo bi nga bàyyi ko mu dem ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko nañ ko wane ci télé bi nit su la naree toroxal da koy toroxal te toro te sàcc bi ci suñu biir la nekk sàcc su do sa doom su sàccee nga xam ne sàcc na da nga koy toroxal bala mu laa toroxal te gor bu ne war na moytu sàcc sàcc amul benn njëriñ amul benn njëriñ nga yor nga nekk say naawlee gor ñu ñu ñu ñu ñu seet lu ñuy suturloo nga ñëw nga ko sàccee amul loo koy def lu dul lu dul lu dul foyee te fekk ki nga sàccee yow yaa ko ëppale wax dëgg neexul ngeen baal ma àkk nag damaa déggul wala bu baax moo tax ma wax lu ma bëggoon wax lu ko ëpp dañuy yor ngànnaay sàcca yi dañuy yor ngànnaay soo génnee guddi nga nga engagé sàcca yi dañu lay rey moom dañu lay rey moom waaw ay gànnaay dañuy yor ay ay kaabus yor ay jaasi di yor ay ay ay ay fetal soo génnee guddi ñu rey la waaw moom il faut que léeg-léeg dégg dégg sax ñuy laal si jur sax doo ñemee génn ndax soo génnee ñu ñu ñu ñu ñu gaañ la waaw ñu jël si alal gaañ la ne wax dëgg yàlla dafa métti